donc mais l'approche mais le président de la République Ablaye Wade secrétaire général du parti bu toogee ak Diomaye jeex na yéen da ngeen doon wax ne mag Ablaye Wade bu génnee ku mu yëkkati loxoom nga gañe soxloolu muy wax. waaw ngoo boobu doy na. jeex na en recevant Diomaye il a posé ma déggu ma l'acte est assez significatif. Ah. mais dama la bëggoon woon beneen problème Ablaye Wade Ablaye xam nga yoo xam nga yoo xam nga Ablaye Wade to nga ak moom plusieurs fois Ablaye Wade boo ñëwee boo liggéeyee liggéey il ngeen di yow xam nga ne Ablaye kat waxtaankat la parce que dafa am lu muy jëlee ci yow nga jox ko dara dañ nangu loolu donc bu demee ba àggul foofu c'est parce que am na ay limites waaw le secrétaire général de notre parti il a des limites. quelles limites. les limites de l'âge et pourquoi nga pourquoi ñu bëgg a décréter dama koy dégg ci libéraux yu bëri euh, euh, une sorte d'indigence de de de de de Ablaye Wade. mais mais xamul tax. yow fii nga toog ñu tudd ko rek nga bëgg a jooy pour yërëm ko te kooku dafa doon analyser. non yërëmuma ko non attends attends attends waaw d' accord na. <laughs> yërëmuma ko de d' accord na d' accord na donc <laughs> na. waaw ah. mais gis naa sa situation bi te wax waxtaan ci tàgg xam naa ne gis nga ni nga meloon wax nga ko léegi ba répété ko du ma ci dellu si waat parce que lu ko yàq laa dul bañ mais dama ne président Wade mag la. mag la. Euh, waxatul ak ñun. Macky la mais il a posé deux actes majeurs ci ci ci campagne bi. wax naa loolu passé naa ko. il a posé avec Bassirou Diomaye mu nekk euh, le PDS apporte son soutien. Oui. il a coécrit une correspondance avec euh, l'ancien président euh, Abdou Diouf pour appeler au calme et à la sérénité. dëgg ma wax loolu man ma ba nga ko defee man maa ci bind man j'ai même essayé d'appeler le président Abdou Diouf et j'ai fait un article pour dire que ñun ñëpp nañu soutenir. la co-rédaction de cet article de Ablaye Wade et de Abdou Diouf dama ci taxaw man lu ma war a taxaw damay ci taxaw dama ci taxaw ngeen yëg ko parce que bi naa ko am na yoo xam ni ci waxtaan wala moment yi may parce que Abdou Diouf c'est un homme extrêmement ouvert attention am na façon dundam am na sa sérénité am na son calme mais c'est un garçon très excusez-moi c'est un cousin très parce que dégg naa ko il arrive des moments où dégg xam naa ko maintenant loolu bu amee nag léegi Euh, nga ne bind na texte c'est bien vrai ñu dem ci élection yi ñëw ci li ñu nekk nii mais les gens ont organisé une front mais balaa ñuy ñëw ci front bi yow da nga jàpp ne su ma la dégloo da nga bëgg a wax ne tous les actes yi ñuy imputé à Ablaye wadd du Ablaye Wade c'est ces actes là portent l'empreinte de Karim encore une fois je n'ai jamais dit que ça portait l'empreinte de Karim mais du Ablaye Wade waaw ah, déglu ma rek déglu ma rek signature bi ma jot cachet lu ñuy def ci Ablaye Wade man gis naa ay nit yu falsifié wala suy signé à la place de Ablaye Wade je l'ai vu en politique am na ñu may dégg Habib Sy m'entend donc falsifier signature am na mais signature bi évoluer am na Ablaye Wade mënuñu gis. mënuñu dégg moment bi nit ñi yàkkamti woon tuuti pour gis ko peut-être moo doon ci arrivé jumaay bi mais tout notre tout notre staff politique tout ce que nous avons d'important en politique était parqué dehors comme des moutons pour ñëw teeru jomaay kan mooy jomaay mooy ki nga xam ne malgré mu ngi ci prison parteem fexe na ba moom mu nekk candidat parte moom fexe na ba mu nekk candidat partem fexe na ba mu set partem fexe na ba mu ba taxul partem fexe na ba ñoom ñu ma amaye maye te ñooñu ñoo ñëwoon ci ñun bi ñuy ëgsee rek ne li ñu war a jëkk def mooy ñoom Ablaye Wade yi nañ leen rey nañ leen fusillé tu crois que c'est c'est ça, ça peut entrer facilement dans la tête des militants dafa mel ni d'accord ci soutien bi PDS apporté non encore une fois je ne l'ai pas dit est-ce que d'accord nga ci euh, euh, xam nga bu ma ci daa dama lay wax benn affaire bu gàtt rek euh, ci samay responsabilité gis nga dama wax ñu ne bu ko wax mais wax nañ ko ñëpp dégg nañ ko je n'ai je n'avais pas de capacité de soutenir Diomaye. ah bon ni dans ma tête ni dans mon esprit ni aussi pour tout ce que j'ai fait pour ce candidat-là.